jërëjëf mbokk yi seetaan jàmbaar news nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte toog ak Mbaye guy Gui la grand champion kenn du ko présenté doomu Bawol bi waaye doomu Medina bi jàpp naa ni li mu am Medina xale yu bari yi fi juddoo sax amuñu ko fi ndax buy jug mbooloo mu bari dañu koy topp tey nag muy def ndogu ñu koy siyaar bu baax di ko ndokkale ci weer bi di ko baalu àq bàlla àq ñaan yàlla boole ñu jéggal tey lan ba yëg nga am waaw jili maa ngi lay nuyu di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp maa ngi gërëm sama Serigne Sëñ Tafa Diouf borom boox ak Njaañ am naa yëg-yëg am naa te kontaan naa baax a baax parce que gis naa samay nit ñëpp ñëw te boo yaa ngi ñëw léegi ci kanam tuuti ñoom ñëpp dina ñëw incha allah lii chaque année dama koy def bii mooy troisième édition ma koy def di am contentement di ñaan yàlla sunu borom sak at ma gën koo man te chaque at ma koo man ba ma koy def daaw demewut kon nii toggumaan dara mburu laa joxoon ak café te bii togg naa waaw kay togg naa ñaari mban ceebu yàpp ci biir xam nga ci kattanu yàlla déwén incha allah naa yeew fii ñaari nag loolu laa bëgg ci kattanu yàlla parce que ñun yoruñu dara amuñu dara mais am nañ nit ñoo xam ne chaque jour bu ñu taxawee ñu ñëw taxawu nu jàppale ñu waaw kon sant yàlla waaw. mu am solo bu baax a baax sa diggante ak say xarit say njagañaale ak togg ndab ñam. ni mu mel nga yéene ko joom jaamu yàlla yi loolu kenn xamul lu la suñ borom mën a fay ci waa loolu sant yàlla rek jii li boo gisee tey ji loolu yëpp buñ ko mënee sunuy nit suñuy nit dañoo ñëw nenu dangaa xewle lii dañ ciy dugal suñu xaalis def ci lii ak lii ak ku ci mel ni Abdou Tall Abdou Tall sama nit la sama xarit la dal ma jàppale taxawu ma Cheikh Omar Barazar dal ma taxaw jàppale ma Grand ràbbu dal ma taxaw jàppale ma Fallou Fall Touba marché Ocas Fallou sama doomu ndey sama xarit dal la taxaw jàppale ma taxawu ma xamal ma la di gërëm gaa yi ci jàpp yëpp maam góor Sam da cee jàpp bu baax a baax Assane Nday Sarr Fallou Touba xamal ma la ñoom ñëpp dañoo ñëw ku ne ne da ci dugal ñaqam xaadim Touba sama doomu nday sama xarit fàllu Faye Abdou Seen jarbaatu jéey moom waxuma ay waxam jàpp na ci bu baax a baax a baax Modou Fall doomu nday Omar Sos itam jàpp na ci bu baax a baax a baax sama papa jéey moom yàpp bi nga gis fi yëpp moo ma ko jox kon sant yàlla man jooyu dara moom nit ñi yàlla sunu borom def na am naa nit ñi ba pare man maa ngi sant yàlla bu baax kontaan naa bu baax nag parce que gis naa bu ma wootee ñii ñëwee taxaw ma su ma wootee gis naa ni booy yi génne ak samay nit tiset yi kanji aw ma fayam kanji moom dama am combat mu yàqu yàquwaat mu woo ma ba mu ñëw mu yëkkati teraanga ju bëri jox ma ne ma téel ma tëne ko lii nag mu ne ma maa la ko jàppalee xam naa ne xale nga da ne ci yoon sonn nga ci combat bii nga jël mais nag bu ko kenn yëgee yàq ko wax bu ko wax kenn ma ne ko ku def lu ko dama koy wax Kanji borom ETDR maa ngi koy gërëm bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm gis nga tiset yi yëpp moo ma ko jox kon Kanji aw ma fayam yàlla mi am fay yàlla na ko fay ci barke Seydina Mohamed lu mu man ren yàlla na bulaa déwén mu man lu ko raw ci barke Alxuraan waaw. daaw mu ngi la fekkoon nga nekkoon ci préparation yaakaar naa ci koor gi de wala. waaw daaw maa ngi doon préparé ban combat daaw waaw sama combat ak Zarko sama ko non sama combat ak boobu fekk na ma génn ci combat bi quoi bi muy door a ma jëlaat ko combat armé ba léegi waat gis nga mais yàlla sunu borom def na ñun am nañ dat ñu ngi waaj la 20 mai incha allah waaw. tuxu sa bët saañ bi réer mais. xew bul ko jàppal bis wala bu <laughs> mais loolu waaw day gaaw a ñëw mais nag sant yàlla rek ñun ragaluñ lool amul benn problème pare nañ. la 20 mai ci kàttanu yàlla. déggoo ma de na ne fépp xool ma ni ma mel du gis nga ni ma toll. ba làmb ja ba ma simé ko man sax làmb ma indi état bu bees. te lamb ji ci raw sax xam nga mosu ngeen maa gis ma ndaw bii damay ñëw contact ba jeex tàkk ñëw ndaw jàpp ko daan ko bërax bëlaxee ko daan ko dem sama yoon ndaw moo ma ci arrangé mukk ci àdduna damay tuuti ñëw def li ma bëgg a def mu jeex mukk ci àdduna mais armée nee na tollool bu ngeen bëree yéen ñaan mu def la baat ak tont problème mu luur kay la am mais du lese waaw mais damay doon lese daan ko ci kàttanu yàlla te bu baax a baax ca waxal la man lii yii tànk du tànk yu ñuy roof ay cabaxal non ay din laa yëg yëkkati ay cent cinquante kilos yu teg di yëg ci ay escalier di entraîné ragaluma lool. maanaam taatu wëlis bi mooy bu armé mooy caxabal. taatu armé day sóob rek taatu wëlisam cabaxal la rek <laughs> taatu gaalam day sóob cabaxal bi rek a fa ne. billaay walaay mais Seexu Mbay borom état unis sama doomu nday sama xarit Seexu Mbay borom États-Unis sama xarit sama doomu nday jàppale na ma ci ndogu yi maa ngi armée daa bëgg a man damay xeex moom duma ko. dama ko duma ba mu daw ma jàpp ko daan ko. seetaan ko wala seetaanoo ko John Karabu écrit maa ko njëkk daan duma ko ba mu bëgg dee ma roof ko cabaxal daan dab daan jili coow lee bëri rek. lamb am léeg defet am ku ŋal-ŋali di wax. saako yi de. déggoo ma de. mais benn defet saako la. man Zarko rek a ma daan Zarko ba ma daan léegi ñaata nit la daan. ñaata victoire laa tegale avant ma Zarko yi daan. waaw kay. ñaari victoire la teg merci kon tey ji bu la daanoon ñu daan ko day ña du doon dara dañ naan ki la daan du dara mais yàlla def na daan na ma daan ay champion kon sant yàlla rek waaw li bon nga mujj ci affaire yi <laughs> mais ñi ci mujjee kay nga war a. mais bi nga kenn xàmmeetul mbay guy gi nag vraiment ci communication. waa ci communication comme merci parce que maa xam li ma daan. waaw xam naa li ma daan. xam xam li ma daan xam nga xam naa ko moo tax nag da lamb saa boo jógee da ngay changé soppe ko. ragal keroog moom ragal nga woon sax. ma gën a mitti ci àdduna loolu nit ñi wax noonu. man aw ma ku may ragal ci sama àdduna. waaw mais man tey jii conseil conseil ñu ma ma xeex ak Zarko leneen lañ ma conseil woon kon tey jii bu yàlla sunu boroom defee yaa ma gën a xam ma ñëw Zarko mu demee noon man quatre appuis lañ ma daane kenn wëlbati ma gang yanu ñu ma ba taxaw ru ci suuf. daw da ngaa ma looloo ma mitti nag. looloo tax combat yi ma jëm ma nar koo faj ba ñëpp teg ci seen bët. dégg naa même sa booy sax dañ ne non xam ne mbay. yi ma gëm dégg loolu samay gëm samay booy yi ma gëm. duñ wax lool keneen kuy wax lool mooy da ñëw àndandoo ci coow li rek di ŋal-ŋal yi te sa yoon new ci mais man ñi ma bëgg te yàlla tax sa mame combat mu daanak ma daanu yëpp garaawut ñoom xam nañ li ma war mooy entraînement yow mas nga maa gis ci làmb ma simé nga ne kii entraîné wut ma soo koo de fu ma simé nga jàpp sa gémmiñ biyee ci raw nag bu ma simé ku ne dina jàppaa sa gémmiñ te dinaa bëreet naa daan incha allahu rabbi waaw armé laay bëreet jàpp ko yenn ko ba taxaw ruut ci suuf. doomu ndey général. non ñooñu ñëpp dañuy xaar ba jamono neex. général Malika lay kon général day xaar buur la nii la barki dem boo njaay jiili <laughs> fii moom doom ndey. Eh, da ko daan dañ ko jox. Serigne Salim Mbacke niil eh, xam na ne niil la. danoo bëre mënu koo daan mu niil. victoire amu fa de affaire yi moom niil la fii moom lam ji kun fi yëkkati sa loxo bul foog ne dara niil la rek daan mooy wëlbit gang ku dem. maa ngi moom yëkkati euh, armée maa ngi moom yëkkati loxo barke Seydina Mouhamed manta ne te du am yëkkati loxo xanaa mu daw ma bu ne pir ma ne nii mu gën saako yi ñu ñëwaat ma ne nii mu gën saako yi boobaa mën naa am mais jàppante <laughs> benn benn benn jooy lañ koy jooy rek mu jeex barke Serigne Touba Mbacke armée armée nag doom nday mooy loolu quoi dama koo jël pour relancer waat taxawan fi ma taxawaat rek lu neex mais nawloo woo armée li nga. Ah, mooy lool. wallaay asim teguma ko sama bët. barke Serigne Salim Mbacke ñi ma war a bëree du ñii lamba tërër rek léeg-léeg xaw a def ay gàllankoor nii. waaw mais mooy lool. man waaw ma ah, loolu nag sama vie privée la. du lu may toog ci média di ko wax. dama am vie privée. Eh, am naa soxna ak aw ma soxna sama vie privée la. merci. déggoo li ma la wax soxna ak soxna yëpp sama vie privée la. dégg nga am naa soxna mais sama vie privée la du ci détail ci tele waaw du ma toog ci télé naan am na lii wala am naa lii wala di ko merci du ma ko wax du ma ko wax du ma ko doxe sama vie privée la waaw kay mais bu jotee ba ma toog génne sama soxna toog ma toog mu toog télé ñëw ma def ko mais jotagut daa am lu may xaar bu jotee dinaa toog mu toog sama wet ma publier ko ba ñëpp gis ne kii ay sama jabar am naa jabar nag am naa ko baax fas takk ñaareel ndax lépp fi di kay lépp mën a ne. ñaareel ak yëpp ñetteel ak ñeenteel yëpp. barke Serigne Salim Mbacke ñi mën a maa ñetti jabar. ñi mën ma maa takkandoo ñaari nit ci benn jour. mais xanaa daa am looy bañ rek ak coow léegi yooyu noonu. looy def da nga ci sóoraale say kilifa. man ay kilifa topp sama ginnaaw ku ci mel ni jéey seen sama papa sama xarit Abdou Aziz Aly Ndiaye. no sama papa Dieye am na ñetti soxna. waaw kilifa la ñooñ ay kilifa lañ. Ah, non man doonaguma kilifa di xale bu ndaw laa bitiku mbag laa yor ñooñ nag ay magasin lañ yor. waaw kay kon tey jii damay xaar ba jamono neex rek ma def liñ war a def ñoom bu ma amee liñ am def liñ def. Mhm. takk benn. bëree boo daanee ba pare kon mbaa dina am kër man damaa bëgg am kër bëgg a yóbbu yaay màkk ak yooyu bu ma toppee jigéen ñit mooy lool de waaw. le foo ma xaar de doom day ba jamono neex dëkk bi réew mi fi mu nii ci wàllum liggéey lañ toll am koom-koom bi mooy lool le foo ñu sóoraale yooyu waaw. des fois musuma dégg nga ne maa ngi. ma de sama yëpp du ma ko tudd média nit ñi di ma kar xam nga dañuy karaate man daa am ci lu ma ne nii sama soxna daa am sama diggante moom lu ci ne loo xam ne maa ngi ci bëgg koo am. du yoon may ne ci di di ko ŋal-ŋalee cat di ma dugg man li ma toog ci cat rek damaa doy fi mu nii am na lu ma bëgg te mën a guma ko am am lu ma bëgg te mën a ko am boobu ba léegi mu ne ci man ma ciy lijjanti di ci dox tey jii du may toog di pibile loo xam ne maa ngi ci bëgg loo xam ne amaguma ko ba pare di publier fépp non waaw loo gis nii la léegi làmb moom célibataire ak marié man daal lépp la célibataire armée <laughs> ci armée yàlla na ko yàlla defal jàmm rek suur ba inshallah <laughs> yàlla na ko yàlla defal jàmm mais daal maa ngi gërëm ñëpp am Modou Fall doomu ndeyu Omar Sos maa ngi koy bëgg baax jàppale na ma taxawu na ma Cheikh Thiaw sama doomu ndey sama xarit taxawu na ma jàppale na ma maa ngi bëgg ñëpp ñi ma jàppale ci ndogu li Fallou Fall maa ngi bëgg ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm jiili dog jot na ceeb yaa ngi xeeñ nañ ko xaar affaire yi yàqe ñu àggale ko waaw kontaan naa. maa lay jaajëfal jaajëf ji li doom day